dal leen ak jàmm ci tënkum xibaar gi fii ci Télé Sénégal TV doore ko ak politique euh, kii di Aminata Touré jamono ji ñu toll nii nag taxawaayu kenn bëggul la taxawee ci réew mi li ko waral moo di euh, gannaaw ba mu waxee kàddoom yooyu noonu ba tax ñu jëlee ko file ci assemblée euh, moom Aminata Touré ñu seetlu nekk waa APR dañu ko génnee ci seen bopp te ñi ci opposition bi xajowuñu ko. coowal politique ñu des ci ba tey ak euh, li nga xamante ni moom moo di euh, procès bu ñu jëm le 2 février kii di euh, monseigneur Benjamin Ndiaye xëy na wax ci di artu rek tey ñaan jàmm di xamle ne li xewoon assemblée doy na waar ba tax na rek lii di Sénégal bëgguñu benn yoon ku fi yee na ak lu munti am nañu ñaan jàmm te di ko doxale coowal li nga xamante ni moom moo di train express régional TER jamono yu ñu toll nag ma ngay wéy di euh, lëmbee euh, xelu askan wi ñu toog euh, ba tey di ko waxtaanee fu ne ginnaaw bi ñu Le Figaro yëgalee ci benn article que ne li nga xamante ni moom moo di TER ñun Sénégal amuñ ci benn wàll ñenn ci askan wi nag ñoom ne dañoo jaaxle li ko waral moo di kii di ministre Mansour Faye ginnaaw bi train bi di door dafa defoon ab janook taskatu xibaar gi di tàgg li nga xamante ni moom moo di train bi di ñu xamle ne nag sunu njëriñ la waaye li ñu jot a seetlu di depuis problème bi ba tey génnut euh, wax ci lu jëm ci li nga xamante ni moom moo di euh, problème bi ngir euh, indi ay leeral ñeneen ñu doon janook taskatu xibaar gi ngir sàkku ci nguur gi mu libeere ki nga xamante ni moom moo di nit dof ak jëtinu yi nga xamante ni dañ leen a jàpp ci lu dut yoon bokk na ci Fou Malade Ngaaka Blindé Simon nongo di ak kilifa bu kër gi nit dof nag ci ab fàttali dafa defoon benn live ci compte Facebook doon dal ci nga xamante ni moom moo di kaw nguur gi di wax ci li nga xamante ni moom moo di injustice di sàkku tam ñu bañ a jug nangu lii di euh, troisième mandat ba tax nag euh, ci euh, live bi mu xawoon a mer ba daal di tàmbalee saaga ci noonu nag ñu daal di koy euh, teg loxo euh, kii di euh, Fou Malade bi ci confrence de presse bi nag moom xam le na ni hip hop ak saaga ñoo ànd ndax doo gis benn historien buy taxaw di expliquer di saaga sàkku nag ci nguur mu daal di libéré ki nga xamante ni moom moo di nit dof ak ñëpp ñi nga xamante ni jàpp nañ leen ci lu dut yoon ñu des ci coowal politique ba tey ak li nga xamante ni moom moo di procès bi ak li ko wër kii di Mola Morgan ak bokkoon ñoo doon defaan Ousmane Sonko xëyoon euh, fan yi la ñu weesu ne nag euh, moom am na lu mu jot ci ay preuve ni que Ousmane euh, wul waaye def na ba tax nag mu sàkk woon ci ne nañ ko may quelques bés bu Ousmane Sonko génnut wax lu leer askan wi moom dina génne ay preuve bokk na ci ay audio ak vidéo yu kii di Ousmane Sonko di defee ñaawteef doon séq ak kii di Adji Sarr mu ne woon nag yor na ay preuve ginnaaw bi mu dégluwee lu yàgg kii di Ousmane Sonko te Sonko génnut wax ci mu daal di publier ab euh, photo benn waay ju euh, sol ab caleçon taxaw photo wu mu doon euh, wax nag ne kooku Ousmane Sonko la ginnaaw bam ko publier nit ñi nag daal di dal ci kawam xamle na nag euh, photo boobu noonu lee ab euh, montage la ba tax euh, ginnaaw loolu nag mu daal di xëyaat def live di jégalu kii di Ousmane Sonko te nag di xamle ne ki ko jox image yooyu noonu defut lu dut bëggoon ko jaxase kii di Sonko ba tax na daal génnaat na ci ba set ci wecc di wéy di continuer combat wam di xeex lii di injustice ak li nga xamante ni moom moo di troisième mandat